yonent bi dellu ne àdduna lépp dañ ko rabbu li ci biir àdduna lépp dañ ko rabb ba mu des tudd yàlla ak lu ko niru ak aja xam ak kuy xam lu wax na ni àdduna lépp dañ ko rabbu ba mu des tudd yàlla ak lu ne demee ak sàkku xam-xam ak ki ak ki xam mbaa ki xam lu ñun képp la fi yàlla bàyyi rabbu leen waaye li ci des lépp yàlla rabbu na ko kon sun borom ci alxuraan ba tey wax na ci ni ñu xam ak ñi xamut duñu mën a yem qul hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun mu wax yonte bi ni ko laaj leen nee leen ndax ñi xam ak ñi xamut danañ mën a yem te duñu mën a yem képp mooy tontu li yemuñu rek lay teg maanaam laaj boobu laajub inkaar la laajub wane ni mënta nekk mënuñu yem mukk tedd yonente bi sallallahu alayhi sallam bi suñu borom dina ba di ko digal mu dolliku lenn dañu ko waxul rabbi zidni ilman ñaanal yàlla mu dolli la xam-xam yàlla di yëkkati daraja yi boroom xam-xam yi wax ni yarfa'illaahu llaziina aamanu minkum wa llaziina uutul ilma darajaatin yàlla mboolem ñu gëm ci yéen dana leen yëkkati waaye dina yëkkatiwaat nag daraja yi boroom xam-xam yi ba tey ab jullit bu nekkoon war nañ góorgóorlu ci dolliku xam-xam fu mu toll gannaaw bu ko yàlla may ak ngëm ndax ak ngëm leer lay doon gu suñu borom di def ci xolub ku ko neex waaye gannaaw boo gëmee ba noppi nag jamono bu ne ngay sàkkoo dolli ko xam-xam ci ngëm googu ndax lu gën a dolli ko mu di la gën a yéege digal gi mu ko digal yonte rek am jàngale la ci mbooleem jullit yi ngir ñu xam gëdd ak xam-xam ni mu toll di ñaan yàlla nag mu saxal seenu ngëm ci seeni xol rabbana laa tuzigh qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab jullit bi jamono ba ne war na ñaan yàlla ngëm gi mu ko defal ci xolam mu di ko dëgëral jamono bu ne it mu saxal ko bañ a jàngal ab xolam yonente bi sallallahu alayhi wax na ne sàkku xam-xam farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen farata la ndax dayo bi tax suñu borom bind doomu aadama muy jaamu ko wax ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni jaamu googu mënta nekk mukk ci lu dul ak xam moo tax moo tax yonent bi ni farata la ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen te osol dañuy jàngale ni lépp loo xam ni euh, boo ko deful la la nga war a def doo ko mën a def def loolu yi da lay war bu fekkee ni bala ngaa mën a jóg taxaw julli dangaa naan potu ndox bii boobaa tax potu ndox boobu naan ko taxawaayu julli lay taxaw da nga ko war a naan wala daal di war war ci yow ni la julli war la war ngir moo moo mën a tax nga def la war. loolu moo tax kon fa mooy kon sàkku xam dafay doon lu war yonente bi xeemem loolu lool nit ñi xam-xam ngir wax na ci benn xadis ni nit ñi duñu daje mukk ci ab néeg amut ñenn ñuy daje ci ab néeg ci néeg yàlla yi dafa jàng. téereb yàlla bi di ko jàngalante ci seen biir taddu ak dal wàcc na ci seen kaw illaa nasalat alayhim sakina wa xashiyathum rahma yërmaan dina leen muur malaayka yi peeg leen yàlla tudd leen ci mbooloo ma nekk fa mun léegi ñoo ñi nga xam dañoo dajaloo ci jàkka ci benn nekk ci néeg yàlla yi dafa jàng alxuraan di ko jàngalante ci seen biir de sun borom dana leen defar ak dal dalu ak dalu xel dana leen defar ak dal defal leen it malaayka yi peeg leen mu wàcc yërmaande mu muur leen yàlla limaale leen ca mbooloo ma nekk fa moom sëriñ Tuuba radiallahu anhu ak xam-xam sëriñ dafa ñëw ngir yeesal si sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni yonente bi wax na ci hadis ni yàlla dina def bépp téeméeraat suñu borom dana fa wàccee ci xeetam wi koo xam ne day yeesalaat diine ci xoli nit ñi ndax nit dafa gaaw a fàtte saa buñ amee lu ma téeméeraat ba dañ ko am sax nit ñi dañuy fëtt lañ jàngoon bu ko defee suñu dana ko dugal ci xolub nit ki def ko ci ay tiram def ko ci ak ruuxam mu di ko dund dund bu wér ba mel ni ñu ko dund jamono yonent bi sallam ba loolu doon aw lay ci képp bëgg dundaat diine dana gis foo ko jaar moo tax Sëriñ Tuubaa bi li mu wax mooy lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatawal garra wa inni ahmadu damaa yéene lu yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa wax ni sunna alquran ak sunna du luy màggat waaye day màggat ci xoli nit ñi ñu war koo yeesalaat ci seeni xel yeesal ko ci seeni xol ñu dundaat ko moo tax yeesal googu lim laaj kon jamono bu ne mooy mu ñëw yeesal alxuraan la alxuraan junjoon mu joxañoon mu joxañ ko la mu wane mu wane ko moo tax nu alxuraan ak wax yonente bi fonke xam-xam day feeñ ci mbindum sëriñ Tuba sëriñ bi wax ni yaa ayyuha sibyaanu di digal gone yi di digal waxambaane yi ni leen yéen gone yi na ngeen farlu ci sàkku xam-xam yaa ayyuha sibyaanu لا تشتغلوا عن الهدى يعني بلن بلن بلن بلن صالوا لول الأنجب وبلن علوم يشتغلوا نجن نعم صالوا يتخم خمية فاشتغلوا بالحفظ والتلاوة نجن نعم فخ بس يتجب نجن نعم كده في دي مكل أجدانغ واجتنبوا مجالس السخاوات نجن دي ما جتاي ينغ خم جتاي تخيد لا قوين فدم دوين فدك ربا دوين كفا أمي دوين كفا خمي نجن دي ما تجي جتاي يوي تيتان جتاي ينغ خم جتاي يوين دي جبلة جتاي يوين دلكو خم خم لا جتاي يوين دي آه، دلكو أجمكل لا وخبرني من يا أيها الشبان إن خفتم خجل فقدموا تعلما على عمل يين وخبرني بفكر رجل جن قتة نجين جيت الخم خم تجف دلوقت ن ن نخلبي ن ن ن نجلد بيغا خمتن داجوب دي داجوب ديم تبرون تيد منتجك إنك كادهون إلى ربك كدهن فملاقيه نت نيب ñi ngi dox waaye ci seen boroom lañ jëm te fokk dañuy dajeeg man mu ne nag wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa bi ihmal naasika bul bàyyi mukk xam-xam ci benn bis bis bu set na nga fexe ba am ders bu bees ders bu bees boobu nga xam it na nga fexe ba jëfe ko noonu mu soññee ci xam-xam ni al ilmu wal amalu jawharan xam-xam ak jëf mi ngi mel ni ñaari wurus ñaari gànjaar yu seer yoo xam ni loo ci bëgg jënd mën ko ci ci yiwu àdduna ak yiwu alaaxira لخير دار يجلبان خم خم اك جفكو نياري غانجر لا نيو خامتني دي ني خيتال يو ادنا أجي يو الاخره متجن ففيه ما كون نغا تي فرلو وفي التصفيه اكسللكم من كل افه تي بيب غاك غاك وفي التنقيه اكسللكم مو واخني خم خم اك جف خم خم نغا تي تلب لوكو ورا يق نغا فخه براندالكو موي جمال بني ngay xam di jafe di bàyyi xel di moytu di góorgóorlu ba lu ko nar a yàqul na dañ mu del ne wa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalal yantami képp ku leen teru xam ku leen tere xam lu na ngeen xam ni tereem googee ak réer dong la daal ci teg ni is kullu man fi dha zamani manaa من التعلم فإنه دعا لبدعة شنيعة إذ العمل إن لم يكن بالعلم شاب وخلل موحني wax ni képp koo xam ni na ngeen xam ne ci réer la leen jëmee ndax jamono bi ñu toll kat képp ku tere xam lu day ma ngay woote jëm ci bidaa ku lay tere rek xam-xam woo na la jëmale ci bidaa ndax xam-xam jëf ju mën a doon bu ante ko xam ay yàqu-yàqu yu bari day jaxasoo ak moom. daal cee tegit ni is kullu aamilin bila ilmin yura fa saayuhu mislu habain nusira bépp aji jëf ñuy jëf te la muy jëf teg ko ci ak xam jëf ji dafay mel ni pënd bu ñu wisaar ndax lu ko yàq day yomb lool waaye nag wa man xawaa ilman wa laysa yamalu bihi fa innahu ximaarun yaxmilu daal waaye nag képp ku làkk xam-xami nag waxuñ xam-xam kese da koy jëfe xam-xam bi boo ko làqee te jëfe woo koy jaag mbaam mu ñu sëf ay téere yéen yam kon ñaari ñooñu ñu bàyyi xel ne ci li fondation ci li ci li sos tabaxub sëriñ Tuubaa tabaxub yoon sëriñ Tuubaa bi ci la bokk muy xam ak jëfe xam-xam